interroger ay parti boo ma waxee ci parti ba nga bokk rek kon yaa ngi indi problème mhm. man bokkuma ci benn parti je suis le chef de village mhm. et chef de village ñëpp laa mhm. boddiwuma kenn bàyyiwuma kenn ñëpp laa boole jiite faut que ça soit clair maintenant bu ñu waxee ne chef de village moo tere euh, ñu suul je crois que wax nañu wa war nañu wax rapidement c'est pas vrai le chef de village terewul kenn suul terewul kenn souli mais le chef de village s'il y a problème il alerte les autorités compétentes le sous-préfet le commandant de la gendarmerie ñoom ñu ñëw pour ñu rek pour ñu trouver un problème à ce comment dirais pour un problème une solution à ce problème maintenant ce qui s'est passé maintenant lu xew lu xew xew na ba pare y avait un différend boo xam ne moo moo boole ñaari ñaari ay ñaari parti après ça maintenant on a trouvé une solution donc euh, trouvé nañu solution kon donc le problème mu ngi suñu ginnaaw maintenant ku ci wax leneen nga ciy bëgg a wax leneen wala da ngay créer beneen danga nga bëgg a créer benn coow mais lii c'est très simple bu ñu toogee réglé nañ ko le problème est terminé waaw solution bi peut-être man maa ci gën a man maa man maay le pilier comment dirais man maa ci gën a tuuti pour wax ko par parce que man chef de village là y a le sous-préfet là le commandant de la compagnie là le commandant de la brigade qui était là et il y avait les chefs religieux yoo xam ne ñoom ñoo trouvé solution bi mais peut-être que man je suis le plus concerné ci loolu yëpp parce que man maa fi dëkk xam nga lu ñu trouver mooy c'est très simple dañoo toog ñii ku ñu déglu la bu ñu paree on a pris une décision finale mooy que ni cimetière bii ñu bëgg a délocaliser parce que ce n'est même pas un cimetière c'est un caveau familial pour ma ma delluwaat euh, ci ginnaaw tuuti lu fi xew ce sont des caveaux familiales ay les gens enterrent par par waaw nit ñi dañuy suul par euh, ñi ay mbokk lañu fii la ñuy suul ñi nekk mbokk ñi la ñi la nekk mbokk donc loolu moo xew kon donc caveau familiaux bëri na fi c'est pas un unique boo xam ne dañ dañoo dañoo ne duñ fa suul géwél ay géer lañ fay suul loolu amul c'est compris d'ailleurs caveau familial bu fi am bu gën a bu gën a légal bu ñu mën a wooye cimetière boo xam ne dañ ko dañ ko comment dirais dañ dañ ko autorisé officiellement mooy bii ñoo xam ne moom la géwél yi di bañ moom la ñuy wax ni c'est à sept kilomètres xam nga bu mu xewee ay experts ñëw nañ fi mesurer ça fait deux kilomètres cent ci deux kilomètres cent yooyu foofu boo boo boo gisoo nii sa ginnaaw yaa des cimetières là baax am na ñeneen ñu fay suul te ñooñu euh, fii lañ dëkk ci biir dëkk bi kon donc problème bi dañ ci dañoo ñëw euh, ñambaas ci leneen loo xam ne bokk ci xam nga loo xam ne bokk ci donc yaakaar naa ne foofu leer na xam nga le problème a été résolu euh, ci lu gën a gaaw je crois que autorité dinañ dinañ génnee benn communiqué final boo xam ne day leeral ñëpp non xam nga boo demee Thiès tey wala boo demee Dakar waaye bu demee feneen yaa des cimetières yoo xam ne ñëpp ñëpp lañ fay suul nit xam nga ñun tamit foofu lañ jëm xam nga foofu lañ jëm mun nañu am cimetière boo xam ne ñëpp a koy bokk mais aussi lu ñuy bañ nit jóg jóg rek créer son propre cimetière le cimetière est commun ñëpp ko war a bokk mais nga ñëw te damay créer sama cimetière ma dama jóg dem suba damay créer sama cimetière loolu la waa dëkk bi bañ xam nga te dégg nga lu waa ji wax dans cette partie là ils ont réservé un lotissement parce que dëkk bi day màgg ah pour dak ku ko xamoon yaa a quelques années fii yëpp amuloon ay kër te gis ngeen kër yi léegi mu sës kër bi daal est-ce que compris kon dëkk bi day màgg kon donc même bu ñuy créer cimetière on doit réfléchir fu ñu koy teg fu ñu koy teg foo xam ne bu demee ba ëllëg kenn du naan war ñu kon teg cimetière parce que aussi nous sommes des futuristes quand même. Euh, Ablaye Sène laa tudd ma nekk fi enseignante fii dëkk bi ñu naan enseignant ñu nekk dëkk bi ñu naan Pout Ndof ma nekk aussi porte parole waa dëkk bi problème bi bi mu fi bi mu amee fi la ma fekk bi maire bi gaañoo ñu ñoo nekk fii di def suñu tractation guddi gi. ba niñ ko yóbboo suuli ko donc dara rëccu ma ci mais dañu toog dañoo jékki-jékki ba gis benn vidéo boo xam ne ñu ngi ko publier ci réseaux sociaux yi ñun au niveau de ni fu ne woo nañ ñu fa lu ne wax nañu ko pour ñu def une déclaration mais ma ne leen leen rek moo mën a am coow lu bëri foo ko déggee borom coow li nekkul ci dëgg jël leen seen temps ngeen def doucement le moment venu on va faire notre réplique dañu leeral ok vidéo boobu nag depuis samedi mi ngi daw ci réseaux sociaux yi ñu ne nag dañoo jël décision def benn point de presse pour leeral askanu Sénégal ñi nga xamante ne mën nañoo comprendre li ñuy wax ndaxte am na ñoo xamante ne lu ñu buggul dégg mën mënoo koo dugal seen nopp ñi nga xamante ne bëgguñoo bëgguñoo comprendre kenn mënu leen comprendre loo mais am na ci Sénégal yoo xamante ne lu mu bon bon bon boo waxee dinañ xam ni lii nag moo yenu maanaa bi loolu amee woo nañ fi commandant woo fi sous-préfet ak ndaw sëñ Saliou Touré ñu ñëw fii lañu toog ak waa dëkk bi ak ñaari parti yi bi ñu toogee fii waxtaan waxtaan nañ ba trouver une solution bi ñu trouver solution ñëpp d'accord ne lii la ñuy adopté mooy comme li ma leen wax nii ci olofal bi maire bi nañ ko suuli fi ñu doon suul bu ñu paree ci lii dinañ trouver une solution bi ñu d'accord ci loolu Euh, doomu sëñ Saliou Touré mi fi nekkoon ñaan def ñaan ba ñu ñëpp ñu joxante loxo ñëpp tasaaru ñu dem ñu dem léegi ñoom bi ñu demee seen kër ñibbi ñu changé complètement d'avis xale bi nga xam ne yaay moo gaañu moo ne moom cimetière bale moom pare na ci dootu fa suul kenn il préfère même yóbbu yaayam Touba que di ko di ko di ko enterré fële on ne sait pas le pourquoi je l'ai bien lu tax léegi biñ biñ jógee ci loolu ñu jël décision ni ñoom dañ koy yóbbu dañuy yóbbu maire bi fi nga xamante fa la cosaanoo maanaam fi mu jógee sëy sëy kisan mais loolu yëpp ñu lijjantiwuñu fi lijjantiwuñu dara maintenant par rapport ak li ñu wax ñoom ci vidéo bi que village bi sëgi fi ñu nekk sept kilomètres la ak fii ak yooyu yëpp comme li ma leen wax fii yëpp ñu ngi ci wut ay ay ay solution yoo xamante ne bu soobee yàlla du yàgg dara di ngeen xam la réalité des faits bon biñ ko biñ ko defee loolu ñun fii à au niveau de Poudjak comme nit ñaa ngi doon harcelé di wax di wax di wax di woote téléphone ci lañ jël décision ni dañuy def suñu point de presse pour informer opinion nationale ak internationale ci lu xew que lii am fii à Poudjak nekkul diggante géwél ak géer waaw li fi xew du diggante géwél ak ak géer ok et chef de village bi bi ñuy nommé ak waa dëkk bi mosuñoo tere ñu suul Euh, ki dee ñu suul ko ci sëg yi nga xamante ñoo ñoo fi ne mosul ne mosul am. de toute façon depuis ba jamono ñu yow ak yow xale ñu mos di suul ñoom ñoo jékki-jékki ni suulatuñ fa. et c'est le seul et unique cimetière qui population bi donc chef de village bi ak population bi mosuñoo mosuñoo tere à ce que ñu suul néew bi ci sëg yi nga xamante ne moom la ñëpp xam. nit ñi nga xam ne nag ñoo nekk autour de cette vidéo ñi nga xam ñoo ko publier leneen moo leen intéressé ñun xamuñu ok te ñi ci gën a bari ci ñoom dëkkuñu sax ci dëkk bi ils sont même pas du village ok précision bi ma doon def foofu encore que les principaux concernés c'est une seule famille boo doon def enquête bi ils se nomment Touf Diouf je crois que dépasse wu ñetti nit voilà léegi nag li nga xam aussi bëggoon nañ ko ci préciser ñoom ñooñu dañu embrasser benn religion boo xam ne nouvelle religion qu'on appelle secte yàlla yàlla duñu julli duñu woor duñu nat asaka duñu duñu duñu joxe murum koor bi ñu nee dañuy dañuy indi seen cimetière boobu dañu créer seen cimetière boobu ñun ci lañ ne ne cimetière bi du bu naree am il faut yoon am ci il faut ñu dem ci yoon parce que du ñu nangu au niveau de Pout Dagné ñu def ci cimetière boo xamante ne uniquement réservé à des yàlla yàlla ñu jox leen ko ba bu nekk loo xam ne seen moomeel la bu ëllëgee ñu fi indi nit di leen suul te duñu xam ñan lañu. li ñu dund ici au niveau de Dagné ak ñoom ñoom loolu ñun lool lañ leen wax du ñu julli jàkka baa ngi nii bu mënoon wax dinañ leen wax kenn ñoom mosu fee ñëw ci jàkka julli fi duñu julli ñu woor duñu nag ko duñu nag muuru koor duñu kii te maanduñu teen parce que beneen bi même nit ñi bu ñu fi nekkee nii ndax sax di julli bu ñu rombee fii dañ leen di tooñ. très ku yaakaar julli ak woor kese kese boo dee bu soobee yàlla safara nga jëm jullit dëgg dëgg da nga war da war a gis yàlla d'abord bala ngay mën a sa njullite balaa muy bala muy nekk lu wér j'ai entendu ça voilà donc ils nous ont répondu bi ñu leen ne cimetière bi mënul am cimetière bi bi ñu leen ne ñun dëkk bi fii lay màggee cimetière bi mënu leen ko fee def parce que on a prévu un plan de lotissement foofu dañu ne seen yoon nekku ci ils nous ont répondu avec un niet catégorique day am ci loolu lañ ne nag ñun cimetière bu bees boobu moom ci nii nii nii rek mënu fee amee. cimetière bi ñu leen bu bees. bi. ci ci lañ leen mënul amee noonu. le con pour le pourquoi pourtant je l'ai dit. cette secte de yàlla yàlla. moom la bañ. secte yàlla yàlla boobu moom lañuy bañ mu am fi pouvoir boo xamante ne. dafay dem ba suñuy doom suñuy sët suñuy lépp dem embrasser cette religion la loolu moo tax on s'est opposé à la création de ce cimetière mais opposition bi wax naa ko on est des légalistes li nga xamante ni yoon sant nañu ko tey administration bu ñëw nii leen def leen nii on ne fera que suivre ce qu'il a mais ñun mënuñu dudul dénoncer loo xamante ni dañu considéré ni kii lii du yoon tegul ci yoon dañ koy dénoncer donc le fond du problème c'est ça je crois ah bu ñu jógee ci loolu parce que vidéo bi dégg nañ ci lu ne lu ne dégg nañ ko ci dégg nañ ci Iranda wax na ci dégg nañ ci Seydi Gassama wax nañ ci dégg nañ ci Alioune wax na ci ñooñu la ñu ne nañ def preuve de professionnalisme ça c'est pas professionnel lu ñu déglu vidéo boobu rek dégluñu l'autre partie commencé di wax dans les dans la presse c'est un précédent très dangereux bi ñu jógee ci loolu nee nañu euh, waaw yooyu lañ ko boole Ira Ndaw Alioune Tine de la RADDHO ak ses acolytes ah am Amnesty International on on les a bien écoutés maintenant bi loolu weesoo vidéo bi buzz bi mu def yéen ñëpp dégg ngeen ko xam ngeen ko mënoon na créer leneen loolu lu dul lii c'est parce que suñu camp ñun on a tempéré tout on a pas voulu réagir mais vidéo bi lu ci nekk on ne veut pas entrer dans les détails mais dara du ci dëgg de ce fait ñuy interpeller chef de l'État le président de la République que lii na ci jël ay matuwaay parce que auteuru vidéo bi ki publier vidéo bi war nañ ko traquer traduire ko à justice